commune Mbacke moo ko gagné woon mais malheureusement comme yàlla dogal na coalition am na mu tudd intercoalition wàllu yeewi ah mais comme man nañ jiital fa au niveau Touba ànd gi day am man Ousmane Sonko maanaam ay 6 heures du moo ma wax moo ma woo si téléphone mu ni ma alhamdulilah parce que ànd bi am na diggante wàllu yeewi comme li ñee doon bañ am na far benn yoon. muy loo xamante ni aussi tamit luy rafetlu la parce que parcours la boo xamante ni dafa jar a jàngale pour ndaw ñu dugg si politique ñu xam ko parce que nit dafa am foo xamante ni boo fa xasee tollu. lépp loo xamante yaa ngi ko def pour sa dëkk wala sa gox àddina yàgg yàgg yàgg daan la delloo loolu loolu moo war a tey ji li am tey d'accord loolu dinañ mu leer d'accord xam naa ni da nga ko ko junj rek euh, mënoon na gën a yaatu jombul <laughs> mais mën nañu ci des ba tey euh, ni ñu ciy desee mooy euh, yeewi ak wallu ci assemblée nationale mais bala may ñëw ci loolu li nga xam ne dund nga ko waa PUR muy loo xam ne da ko wax seen sëriñ <clears throat> mu naqari leen ba tey jii la leen naxa ba tey jii mën naa jàpp ne naqari na leen léegi day tax ma bëgg ñu taxaw fenn yow bu lépp weesoo kilifa diine nga Mbàkke nga sant Tuubaa nga dëkk <clears throat> mais naka ngeen mën a expliquer yéen sëriñ si nekk ci biir politik bon attaque yu leen neex mën ngeen ko def mën ngeen joxe coup mais ku du ngeen ko jël bu ngeen ko jëlee taalibe yi wax ci mais naka ngeen mën a expliquer loolu. politique du tee nga nekk kilifa diina parce que kilifa diina moo njëkk politique te politique mooy nan nga mën a dox def ba nga xamante ni sa gox sa réew sa dëkk da ko mën a defar loolu mooy politique mais politique amul wax ñu ñaaw jëru ko kilifa diine mën nga politique parce que ñëpp yàlla njaboote. mais xam nga loolu lépp maanaam dama lay wax rek parce que. ah non mais dama lay wax aussi man itam xam nga xam nga loolu. yow xam nga ko ba pare. ba yaa ngi wax pour wax nañ ñaaw la pour man jàpp naa ni du wax ju ñaaw. mais ñoom ñoo ko jàppee noonu. mais la ma lay mën a wax si loolu mooy politique aayul politicien mu aay mooy wax lu dëgg fen sàcc te loolu kilifa diine gën koo gis muy politique ñu gis ko si loolu amul yenn wax yi dañ ko war di moytu non non no mais mais man mii wax a yow doo ma ci dégg parce que buñ ma ko waxee sax léegi am naa expérience boo xamante ni dootoo ma ko ñoo nit ñi dégg ko xam nga par exemple su fekkee non non honorable ah, xam nga xam nga par exemple nit ñi aussi mënuñu mhm. fàtte fàtte xaju fi yàggul vraiment fàtte xaju fi yàggul sax mënoo fi taxaw di joxe ay leçon de morale ci ay wax ju daan ay wax ay wax yi li lii ak lii amul ci politique kenn mësuma ci dégg mais yow nga dem ci kaso ci wax joo xam ni mais mais mais loolu boo taxawee di ko wax mais kenn mënul comprendre loolu euh, li ma wax jar na yóbbu nit kaso est-ce que man wax naa lu jar yóbbu nit kaso ñaata yoon laa fi wax ak lan laa fi wax ak yow lan ngay wax yow. mais honorable non déglu ma rek. boo nee maanaam wax moo tax mu yóbbu kaso non non. parce que li am problème li am solo. mooy continue wax bi. continuité wax bi moo am solo. yow man nga jàpp ñu wax ñu ñaw laa bëgg a wax mais man mi wax jàpp mooy wax ñu ñaaw laa bëgg a wax. xanaa bi nga bëggee génn. bi ma bi nga bëggee génn bëgg a baalu. non ci nga soppi mais mais dama mais bi ngay xaw ñëpp di la dégg ngay wax nga jël sa fit. xam nga mhm. ñëpp taxaw. Mhm. boobu li nga bëggoon wax. Mhm. li nga wax du la nga weddi. yow man li nga wax mooy la nga wax président de la république ca palais ba ba may wax président euh, wax ko tudd jigéen. ba may wax ba may wax président Macky Sall. waxuma sax président de la république. saa à dire li nga xamante moom ngeen bëgg a indi amalgame il faut ngeen bàyyi ko honorable Macky Sall nga ñu bañ a tooñ. le président c'est une institution non du rek c'est Macky Sall institution la comme ni ensemble nekk institution. Oh, yow bu ngeen bëggee jël nga ni Cheikh Abdou Bara Dolly lii la naroon a wax te xamoo li ma naroon wax lu mu doon mais vraiment loolu amalgame la ak tooñ la man maa wax ni li ngeen bëgg jàpp ni moom laa wax waxuma lool. man lii laa wax. loo wax laaj ko ñu ma ko waxoon wala nga wala nga génn waat bande bi yaa ngi nii génn ko man mosuma saaga kilifa du ma ko saaga du ma saaga kenn du ma wax ju ñaaw parce que dañ ma yar daara la mais nag nit ku nekk boo waxee kenn ku nekk ni nga koy tëggee ak ni nga koy jàppee pour que ñu mën la maanaam faagaagaloon yooyu mën si am parce que yow mi léeg-léeg nga wax wax joo xamante nii mën naña ko tëgg même ñu ngi lay dégg ñu ngi dégg ñu ngi may seetaan kilifa nga naaw nañu la mhm. mën nga wax say wax mhm. nit ñi dégg ko mhm. mais xam nga lu am solo assume li nga wax ñu avancé li ma wax dama ko assumer parce que li ma wax jublu ma si wax ju ñaaw la ngeen jàpp ni moom laa wax waxuma loolu continuer mais non du ma continuer ah, waxal ko continuer après li ma bëgg mooy nga ni ma waxuma lii lii laa wax. yow li ngeen jàpp ni moom laa wax suñ ñaaw man waxuma wax ju ñaaw la ma wax wax naa ko mais jubluwoon si wax ju ñaaw voilà du ma saaga kenn man dan maa yar kilifa diina laa. doomu daara laa. leer na non mais da non leerul. Euh, te mënta leer. <laughs> leerul te mënta leer. ah danga bul mu leer. leerul te mënta leer. amoo ay nopp nga teg ko parce que yow dégg nga sama kaddu ma saaga kenn dégg nga sama kàddu ma wax président baatu président dégg nga ko dégg nga sama kàddu ma wax ju ñaaw ba mu nga tàmbalee xam Cheikh Abdou ba fi may wax ak yow. ñaat at laa tàmbali politique 98 ba léegi nii may politique mas nga ko dégg si man mais xam nga yéen journaliste yi surtout que yéen ñi da ngeen di gonfale wax yoo oh. yaay wax lii ci ah, di la dégg mooy man man man xaaruma woon loolu man dama jàppoon ni dama jàppoon ni man de dama jàppoon ni wax fa dëgg yàlla di nga ko assumer wax ni maa waxoon lii euh, mu nekk bu la neexee sax nga wax waxeet après ñu avancer ay wax waxeet man man man gor laa du ma waxeet du ma wax lu ma gëmul du ma wax lu ma du def ndax rus naa ko mais li ngay bëgg ni damaa wax ju ñaw waxuma wax ju ñaaw kenn ku nekk maanaam boo waxee continuer di wax bu ku nekk nag ni nga ni nga ko mën a gisee noonu nga koy tegee alors loolu dafa loolu dafa mën lu ko indi boobu da nga doon expliquer euh, a politiquer Serigne si ak loolu loolu moo nekkoon yaa ma indil ci ay vraiment ay ay ay loo xam ne la kilifa diine du voilà fallait ma ñëw ci nga xam ne vraiment ay fay la ay fay la ba nga ba li ci xew xew ci euh, alors mais ñu dellu si ci loolu ci li nga xam ne moom nga doon wax muy leçon de morale yooyu nga xam ne yaa ngi ko doon joxe. Mhm. lan moo war a nekk taxawaayu euh, acteur politique bi ak kilifa diine bi ci politique. xam nga acteur politique ak kilifa diine ñoom ñaar dañoo war a jaxasoo parce que religieux ak politique kenn ku nekk da nga soxla sa morom. Mhm. ndax politiciens yi bu ñu soxlaa kilifa diine dañuy dem seet leen kilifa diine te mënut a def dara parce que politiciens yi mooy ak njabootam kon ànd bu baax ànd bu rafet ànd bu jub moo ci war a am. mais yenn kàddu yi chaque jour que dañ ko war di wodd di ko suturaal rawat na nga nekk kilifa diine parce que kilifa diine dama jàpp ni ñun ñëpp pour aar ko pour sàmm ko mooy su njariñ parce que tey lépp loo xamante ni moo tax réew mi am jàmm am dal kilifa diine yooyu la man loolu laa d'accord d'accord bëgguma maanaam bokk ci politicien nekk kilifa diine ba pare dégg ñuy wax sama morom kilifa diine yu ñaaw loolu d'accord ma si mais itam bëgguma nekk kilifa diine di wax keneen lu ñaaw loolu d'accord ma si d'accord alors alors alors honorable c'est-à-dire mais loolu yëpp da nga koy gis dangay gis kilifa diine yi nga xam ay parti politique la ñu yore mais dañuy wax seen xalaat. ci politique bi man nga sa xalaat non mais di nga dégg par exemple parfois sëñ Moustapha Sy def ay sorties jëmale ko président Macky Sall. jëmale ko ñi nga xam ñoo nekk ci pouvoir bi. Mhm. mais loolu di nga koy dégg non. waaw léeg-léeg ma dégg si réew mi. waaw loolu laa lay wax mais pas li ma bëgg a wax mooy par exemple. par exemple li ma bëgg a wax. Mhm. mooy ku ne xam na ni Macky Sall mooy leaderu benn mooy leaderu APR. oui comme ni Serigne Moustapha Sy nekkee leaderu PUR. Mm-hmm. c'est-à-dire parfois di nga gis mu yëkkati ay kàddu jëmale ko leen ko ci ci ñi nga xam ne ñooy. seen leader est-ce que non est-ce war a non est-ce que est-ce que yéen ñi nga xam ne ay kilifa diine ngeen dangeen ngeen war a mën a am boobu boobu boobu boobu boobu maqaama boobu martaba ci champ politique bi waxuma nag ci champ religieux bi foofu moom wax fu dëgg yàlla loolu beneen affaire la. loolu lu ngeen fa laaj ñu jox leen ko lu ngeen wax ñu defal leen ko mais ci champ politique bi est-ce que noonu la war a demee. nga bab maanaam nekk politicien nekk kilifa diine ak nekk du kilifa di ñu yem man wax ju ñaaw d'accord ma si ñu di ko wax ak kuñ ko mën di jëme rawatina kilifa diine man kilifa diine dama bëgg ñu sàmm ko te aar ko te ñàkk parce que ku jaaxle fa ngay jëm politique mën nga politique politique te am na penc yoo xamante ni. wax wax kilifa diin dafa amul sax sens. d'accord débat idée la ñu wax. ok mais pourquoi lan moo fi indi yenn yi. loolu day tax ñu ñëw assemblée nationale. ci li nga xam ni moom la Amy njaay ñii bi wax. ba li ko ci xe fekk fekk ko ci. ba tey fii may wax ak yow am na ci ñaari député yoo xam ñu ngi ci kaso bi moom Amy Ndiaye jii bi li ñu wax mooy ba léegi ma nga hôpital. Euh, ci kàddu yoo xam ne yëkkati na ko jëmale ko sëñ Moustapha Sy loolu je pense fekku la yow. ci man la ko njëkkee woon parce que commission yi dañoo toog ministère agriculture ñëw Antoine euh, Aly Ngouille Ndiaye ñëpp toog moom mu tardé ndax xam nga comme moom dégg naa dafay joxe semence yi nga xamante ne maanaam moom la ministère bi joxe mu nekk maire ñii bi waroon na jël kàddu ci turu baykat yi malheureusement fekk na ba bind nañ ba pare. xam nga bu fekkente ni ministre bi ñëw na nga war a waxuloo danga def benn maanaam bokkan boo xam ne ministre bi xam ne yaa ngi fi waxal baykat yi di waxal waa tubaa ci jafe-jafe yi nga xam am nañu ko seen diggante ak seen waay bi ma waxee daanee gu ma mënuma li nga wax lépp dara si dëgg saaga ma ci kanamu maanaam nit ñëpp toog. saaga mooy. da ngay fen. noonu la la ko waxee. waaw loolu mhm. la ma wax <laughs> te man tudduma ko waxuma ak moom ministre bi laay waxal di kaasa sama waa dëkk ak waa Sénégal. Mhm. mu wax ma loolu. Mhm. ah bi ma ko waxee ñaawlu naa ko. naqarlu naa ko jotlu naa ko ay kàddu parce que man du ma dem di dóor jigéen. loo ko wax yow ba mu la waxee loolu. nee naa ko li nga wax da nga xamadi. sa hmm. baay sama sama mag mooy sëriñam waroo ma koo wax xam naa ni dama ko waxee mer na mu jóg ni damay dóor. Hmm. ma génn ñu kar ko mu jëlu sees mbëkk maam jaara faam fekk ma sama buntu bureau ma taxaw ak Omar Youm mu sànni ma téléphone pour bëgg ma xaañ man la ko njëkkee. moonte pourtant ñi nga xamante ni tëpp ñi ay député la ña nga woon si commission bi est-ce ma génn di ko jooytu parce que dama xam ni. moom loo yow loolu miin nga ko fa nag. miin naa ko fa depuis ma koy wax ko parce am solo mooy du gan sama liggéey Assemblée nationale du wax ju ñaaw mooy tey ma mën a liggéey. Mhm. loolu moo waral ma bàyyi ko mu jàll. mais xamoon naa ne au plus tard bu ko defee keneen leneen doon la fekk parce du yoon ngay toog di saa gil dina ci biir Assemblée nationale du yoon. du yoon aussi kilifa dina di saaga kenn ci biir ensemble du yoon. mais li am solo mooy comme yàlla dogal na plénière bi loolu am na muy accident boo xamante ni ñun ñëpp dañ ko ñaawlu parce que man fa ma fekkoon ñu nga xam ne dañoo nekkoon ay parlement ñëwoon fa sax dañoo ñëwoon indil ma vidéo yi naan lii seen réew la xawee ñuy ñaawlu parce que boo gis rek violence am na am na violence verbale bu ko jiitu. parce que wax moo njëkk a jiitu jëf. mais ma président assemblée nationale bi waroon naa appliquer li nga xamante ni c'est article 54 bi. pour que maanaam mettre en ordre ñi nga xamante ni tey mooy def loolu. parce que yoon may na ko ko. Mhm. mais malheureusement comme amutoon ba mu agsi fii ñu agsi yaakaar naa ne ñun ñëpp dañ ko déplaaru ba nga xamante suñu yenn collègue jàpp nañ leen te jàpp boo xamante tegul si yoon ndax nit ki mënoo koo fekk biir Assemblée nationale ngay def tentative pour arrêter ko bi nga xamante ni ñëw nañu fekk déclaration pour générale bi am. ci ci assemblée la ñu wala bi ñu génnee bi ñu génnee ci dugg ñoom. ñoom ñi leen bëgg a jàpp. ñoom ñi leen bëgg a jàpp ak commissaire yi fa la ñu fekk gaari seen i oto am ñoo xamante ne dañoo këglu